waa AFTU c'est-à-dire que man li ma bëgg a comprendre et c'est ça ma question fan ngeen teg euh, état jël décision ne bu kenn yokk paas yéen ngeen xëy ngeen yokk paas yi ba pare seen qualité service amélioré wu leen ko parce que tata yi da nga ciy dugg euh, maara day taale xat na euh, conditions yi baaxul oto yi lu yàlla xam doy na ba pare ngeen xëy. yokku paas si tilim na. yokku paas yi contre poussière. waaw yokku ah, ah. paas yi contre dëgg la. bu yàlla bu mu taw da ngay toog say yére yi takk. yokku paas yi contre li nga xam ne moom mooy injonction de l' état bu leen wax ne bu kenn yokk doole boobu ngeen am. fan ngeen ko jox xam nga loolu mooy dellu soit ci li wax rien ne se passe dans ce pays boo koy war a wax rek léegi waxkat ngay doon parce que genre yi genre humain léegi yéen afti loolu noonu lan moo ko waral déjà balaa ñuy ñëw si parce que contrat yi aussi il faut ngeen wax ñu yan genre contrat moom ngeen proposer ces chauffeurs là ak ak receveurs yi bañ ba ñu ne leen bëgguñu parce que il paraît que am na ñoo xam ne neen am nañu contrat mais am na ñu ne bëgguñu contrat lan moo waral parce que contrat contrat ñun ñëpp xam nañ ni mu demee. waaw léegi dama ne. Mm-hmm. yow ñëw dañ laa proposer contrat ne la lii mooy contra bi bi ñu war a lay war a lié ak télé bi. Mm-hmm. nga xool ko ba mu doy la nga signé ko. Mm-hmm. pour nga mën a liggéey. Mm-hmm. loolu contrat du tra euh, kii patron patron bi moo koy defar. contrat inspection du travail ngay dem mun la contrat bii mooy contrat chauffeur bi bañ na ko ba ci contrat yi ñu ci bari bu ñuy dem di signé ak seen personnel contrat da ngay ànd ak moom dem ko ci inspecteur devant l' inspecteur. mun la lii ak lii ak lii ak lii moo la war ci contrat bi. Mhm. soo manee liir mu jox la nga liir soo mënul liir mu liiral la ko tekkil la ko ba mu leer ba mu doy la nga signé moom mu signé. yaa ngi dégg mhm. beneen bi ci des yaa ngi ne ñun danoo yokk paas ci force wala doole boobu fan nañu ko teg mais ñun yokkuñu paas. an ah, kay non defal ndànk ma jox la benn exemple non da ngay da ngay déglu mu wax la ah, yokku nu paas non déglul boo dégloo dinaa la expliquer expliquer waaw boo dégloo dama lay expliquer ba mu leer mhm. tataay bi ñuy wàcc boo xoolee da nga daan gis cent vingt cent cent soixante quinze deux cent soixante quinze deux cent vingt cinq xam nga yooyu ci doon gis. bi ñu demee ba benn déjà cent franc yi génne ngeen. amatul cent franc non defal ndànk xam nga yooyu amu ci woon. loolu yokk bi non defal ndànk début bi laa lay ñu toll. parce que bi commencé ñun dañoo dañoo démarré woon ci cent vingt cinq cent soixante quinze deux cent vingt cinq deux cent soixante quinze bi ñu demee dawal quelque inst quelque temps. suñu personnel bi maanaam receveur yi di am problème mu weccat ak clients yi toujours ñu ciy coow à boobu président Abdoulaye Guèye moo fi nekkoon yàlla na ko yàlla yërëm mu woo transporteur yi ba mu ñëw mu ni leen secteur bi personnel bi bu ñuy liggéey à chaque fois dañuy am problème ak euh, clients yi ci problème mu weccet ay sama weccet fii xeex bi fii coow lu bëri mm. mu ni léegi transporteurs yi vingt cinq francs yi ñu ciy teg nañ ko teg pour ñu mën a faciliter liggéey bi diggante entre personnel bi ak clients yi yi bàyyi loolu bi ñu demee période boobu mu ngi nekk ay euh, deux mille deux mille deux mille six deux mille bi ñu demee di dem di dem affaire yi di yokk pneu yi di yokk gasoil di yokk li nekk ci oto bi lépp di yokk ba oto bi nga daan jënd di ko fay période boobu yaa ngi doon fay euh, échéance oto bi par mois quatre cent quatre-vingt et mille. ñu dem ba échéance bi toll ci sept cent vingt neuf mille. par mois par mois. pneu yi yokk gasoil bi kenn du leen ko wax yéen a ko gisal seen bopp ñu bind surtout ne ko. gasoil bi am na subvention. non kan moo ko subventionné. état kan la ko si kan la ko subventionné. ci station station yi pompe pompe essence bu wàccee ci leen yi taxaw sol suñu gasoil fay <laughs> kon fan lañ ko fan lañ la ñuy yokku yokkuñu ko en tout cas. prix bi yokkuwul. lan lan prix lan ngeen yokku seen paas yi. prix lan yokkul. Euh, ga prix carburant bi yokkuwul. non bi ngeen ko yokk xam nga kañ ngeen ko. kañ ko kañ yokk bi bi accident bi amee ba ñu jël ay ay ay ay ay mesures. non yow ñu jël mesures yooyu. man ko constaté. parce que dama ko doon jël moo moo tax ma ko jël. gasoil ñun ñoo ngi koy yokk bi gasoil nekkee 755 boobu lañ yokk boobu lañ yokk suñu paas yokkuñu ko sax dañoo delloowaat suñu paas yi xaw lañu la ñu mayoon moom lañ dindi indiwaat dikk teg. d'accord kon loolu ñun am nañ ci droit. Euh, bon leen ci droit mayoo leen ko parce que état moo ko réguler. non non nii mooy passe bi nii la ñuy def nii la ñuy passé. nekkul yéen yéen li may expliqué xanaa déggoo ko dama ne la. dégg naa ko mais dama. Ah, d'accord alors on avance ñu avancé ah.